bokki jullit yi gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yonentam ba seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp di balu xaq ñépp yal nanu yàlla boole jéggal di ndokkeel jullit yi it ci weer wi nga xam ne moom la ñuy dëgmal tam jege lool yal na nu yàlla may nu man ko jooxe na mu ko santaane te daje ci ak ngërëmam bala ñu cee agsi dañuy jaar tuuti ci xew-xew bu am maanaa bu xew fan yii boo xam ne suñu ñaari doom ñoo ko ñoo ñu ko indil muy jongante ba amoon bitim réew réew mu ñuy wax Malaysia te ñaari doom ci waa réew mi dem fa dellusiwaat indaale ndam lu rëy ndam loolu ñu indaale nag danañ ci jàngat ñetti tomb yu gàtt gannaaw ba ñu leen ndokkeelee ñoom ñaar ñaanal leen suñu boroom mu def leen aw mag doon mag yuy dundal diine te bañ ko dunde tomb bu njëkk ba mooy ñoom kàcciri nañ kàcciri gu saf gu tàng kàcciri nag bu dee mag muy bëgg bantal gone mooy nafa gam wékkoo woon lay wékki buum googee moo tudd kàcciri waaye su dee mag nag caw lañ koy wax yar bu baax lañuy wut bu mel ni bi ñuy dàqe daaba ndaw yooyu fab nañ kàcciri moom wala ñi ko xamul karawaas karawaase nañ benn ñaareel ba it seenu jël ndam foofee taw na waameew kersa ci biir réew mi ñetteel ba it xar baax am na ci xar baax nag mooy boo ko déggee loo xam ne demee na nu kenn foog nuñ ko xamee wutoon kàcciri nag soo ko déggee bu dee ci fas des na ko def fas woo xam ne ma ngay ràmb walla muy cal wala muy jàpp nga bëgg mu dolli ko waaye des na ko def it fas woo xam ne ràmbalut calut jaaru jaabut nga bëgg mu def ko foofu laa ci yam tombu ñaareel bi nga xam ne kersa gu rëy la taw ci réew mi waa meew kersa mooy ñoom seenug dem ñu bari yëgu ko woon kon ba ñuy dem kenn gungalewu kenn gungalewu kenn gungewu leen woon du ci alal du ci ab sagal nii sax nit ñi dégg ko te ñuy gis ne ku ñuy tuddee ne indil na Sénégal ndam kon day mel ne jëlee na jëlee ji na ko feneen li ëpp ci ñuy dem di wutil Sénégal ndam bu ñuy dem ñaare des na leen dalal fi barab jox leen bokk raayeew réew mi ne leen yóbbu leen ko su ngeen demee saa bu seen xel nekkee ci sonn bu ngeen ko xoolee mu joxaat leen jom xam ne ñu bari ngeen ñëwaaleen loolu jot sa am ba ñuy dem dañoo yolli ko rek dem kon lañ cee jàngate mooy yëguñu leen woon ba ñuy dem kon joxuñu woon leen ab yóbbal sax far du ñii du ñaar bi ñuy ñëwit dafa mel ne réew mi dañoo am kersa ci Sénégal daa gañe dafa am ndam ci alxuraan kenn it teeru jiw leen kenn te ñaar ña demoon jongante bañ doon def bu ñu bu ab équipe di dem équipe bu mën a doon te bokk yi jongante yi ñuy jongante jongante yi nga xam ne par kenn koy def moo ëpp fuuf valeur moo gën a cher jongante bi ab équipe di def ndax par kenn ku gañe am ndam danañ xam ne ab liggéeyam moom bu dee équipe bi nag ñi man danañ yóbbaale ñi mënut dina équipe bi moo gañe ñi man ak ñi mënut ñëpp danañ ci ràññikuwaale waaye ñaari xale yoo xam ne kenn xàmmeegu ci daanaka dem nañ demee ña leen yóbbu dong ñoo ko mën a wax waaye yàlla def na ci sutura seen ñaari tur yooyu muy Muhammad al Mujtaba ak Maam Jaara tur yooyu du ak neen yàlla daraam neenut daraam neenut te moo ne ba ñuy jongante it xam-xam bu wóor moo ca feeñ boo xam ne tontu na lu bari maam jaara moom mee ña ko doon déglu ay jigéen lañu kese genn góor raxu leen waaye muhammadul mujtaba te ña ko doon déglu ay góori kese lañ te la fa daje woon ci heure réew di ko xëccoo moo ëpp fuuf li daje ci li daje équipe équipe bi daje ci coupe du monde téeméeri réew yi tegoon na réew mu ci nekk yóbbu ñam gën le te bu dee coupe du monde bu fekkee mooy football bi ñaar fukki ya cay teg ñaar fukki équipe yi la cay topp du bari lee ñaar fukki réew yaay daje di ko xëccoo ñaar fukki ya la ca topp bariwut bu dee fee ñu doon xëccoo yi nag téeméeri réew ya teg na te am na ci lu yéeme bi ñu demee ba ñëw kuréel ba leen doon gatandu ko gatandoo ko su néew ca ndakaaru yàlla na leen yàlla fay waaye ñoo escorté seen bopp ba àgg fa ñuy àgg daa mel ne kenn yëgu leen dafa mel ne Sénégal daa am kersa ci Sénégal moo gañe alxuraan ci alxuraan ak galgal yi nga xam ne yépp alxuraan dund na ko at yi weesu ba fii ne mu di ko dund benn daare alxuraan lakk na fi ñu gën a kawe ci réew mi dem fa nemmi ko ji ko nemmi ko ci barab ba ñépp ñaawlu ko bëkk démb rek am na kër gu lakk ay gone gaañu ci waaye amuluñ ko solo kon kan lañ bëggoon a joxañ ku dul alxuraan alxuraan lañ bëggoon a joxañ ne moom lu yàq moo ko yàq ki nga xam ne mu mujj def bëkk démb ki ñu wax ne moo def comme ni ñu koy waxee ñoom teel nañ koo layal ndax nañ daa mel ni anut ak sagoom mu jeex lépp joxe fa tàbbi géej waaye Muhammad al Mujtaba ak Maam Jaara mi nga xam ne sax bi ñuy wax dañ ne Jurbel la dëkk ndekkitu yu Tuubaa la dëkk ndam loolu seen ndam la ñoom ñaar waaye karawaas gi ñu dóore dóor ko ñépp mooy ku doon góorgóorlu ci alxuraan la yokk ay jéegoom ku ca nekk gutoon na xam ne alxuraan moom mën nay dem di gañe di dikk te ña ko doon àtte mën nañoo bañ a xam kenn ci ñaari xale yi ku ko man dong lañ doon seet bañ man ko ci maneen wu rafet li ciy xar baax nag mooy ñu bari jàppoon nañ ne buñ demee duñ gañe dara boo demee moo tax ñu ne pat ne ah xam naa duñ fi indi dara gannaaw ay nit ñu xonq lañ ko war a seqal ñoo fay ëpp moo ne suñ bu mag bi nga xam ne kenn ki waajuram lañ ko tudde teeloon naa wax nit ñi ñuul ñu ne leen fu ëpp xëccoo nekk bu fekkee ay nit a koy xëccoo dem leen te gëm ne dangeen mën ngeen a gañe ndax nit mooy kan mooy ku yor ñaari tànk di ko doxe di wax ñuy xam la muy wax kooku mooy nit suñ bu mag bi bi muy wax loolu ak léegi ëpp na téeméeri at ne nit ku ñuul bu mu sëgg fenn jàpp ne nangam jomb nam gannaaw ñu weex laa ko siqal ba muy bind masalikul jinaan mbooleem yi xam-xam laaj da ko dajale bokk na ci yi xam-xam laaj soo bëggee bind wala nga bëgg a wax boo waxee loo xam ne kenn mësu koo xam kon day mel ne jëlee ko fenn yaa ko fent loolu tuddul xam-xam su fekkee it li ngay wax ñépp ko xamandoo loolu tam mënut a tudd xam-xam xam-xam gën naa xóot loolu waaye moom ba muy bind daf ne lii muy bind fànn la goo xam ne moom jëkku koo bind dëkku ci mi ngi ko tuxale ci fii ak faa def ca ay màndarga dafa njëkk wax ne nii la tënk téere bi su ngeen gisee ma bind loo xam ne dama ne xaala rek maa ngi ci jublu imaamul Ghazali mi ko ci jiitu su ngeen bu dee keneen nag mën naa ma bind aw turam ne diw nee na waaye fu ngeen gisee xultu nag man mii maa ko wax waaye bi ma koy wax seen wax yaa laa xool xoolaat ko jàngat ko jàngataat ko root ca seggaat ko ba mu gën a jege ñu ne tekk ne kii moom ku mu war a doon nit ku ñuul ku ñuy war a déglu mu ne lépp lu ma ci indi di lu wér la moom rafetal njort rek te jël bul def bul ko ñàkkal fayda ngir ne moom fii dong la jànge fii rek la jànge demul fenn bul teg xam-xam ci ne ku jàngee fii képp mën wër ta mën a xam waaye ñaareel ba bul ne daa ñuul rek ku ñuul rek la de dal na yàlla waxoon na ci nit ñi kan moo ci gën mooy ki gën a ragal yàlla rek amul ku weex ak ku ñuul ndax ñuul ab der texuta yor xel mu gàtt texutit loo ko wax mu fàtte ko te it bul jàpp ne ña fi jiitu woon rek yóbbaale nañ lépp dara desatu fi ndax kat pousse gu réer wala lu réer bu ñu koy seet mag mën na koo gis waaye ndaw it mën naa dox ba yàgg mu ne ndax du lii ñu ne ax kañ daal di koy tëjee ne ku ne xam na ne buy bëgg a taw da ngeen gis ay wàtt wàtt ndox dana tax ña doon féexlu ca ëtt ba daw dugg ci néeg bu dee Sénégal yi nga xam ne xamuñu ab taw la wàtt wàtt jooju day dañuy daal daw dugg ci biir bu leen fekkee ci mbedd mi ñu gaaw dugg ci ron garab seelu ca wala ron bitig waaye nee na wattu wattu jooju muy def baykat yaakaaru ci ab nawetam donte mooy jiitu baykat mi ngi yaakaar ab nawetam ci wattu wattu ja la cay topp muy waame wa bay dooyu ma jàng mi ngi ci masaliku gi naan mooy fi muy waxe ne wa xaytuma dakartu lafda qultu fa min maani qawlihim naqaltu fa kullu ma fiihi saxiixun usbita fa xassini zanna bihi wa asbita wala yasudduka an alqabuli kawni qasira albaaci fi da aljiili wala yasudduka mada alazmaani an agdihi kawni min alsudaani id akramu alcibaadi cinda allahi aktaruhum taqwan bila ishtibaahi fa laysa yuujibu sawaadu aljismi safaahata alfata wa suu alfahmi wala tuxassis fadla rabbin qad calaa بذي تقدم فقط فتجهلا إذ ربما أري فتى مؤخرا ما غاب عمن قبله وعصرا فالطل قد يبدو أمام الوبل والفضل للوابل لا للطل loolu mbindum Sëñ Tuubaa la ba mu ko waxee léegi ëpp na téeméeri at kon lu tax ñu jàpp ne ñoom ñaar ñii di ay ndaw bu ñu demee duñ gañe loolu mooy ñàkk fayda ñàkkal sa bopp fayda waaye nit ku ñuul dafa war a yëg boppam xam ne alxuraan nit ku weex moomu ko nit ku sokolaa moomu ko nit ku mboq moomu ko ñépp ko bokk lu ci nekk nag am na fu muy jaar tàmbalee fa muy benn ba mu des yàlla yàlla rek moom lañ naan kenn la waaye leneen lu dul yàlla am na fu muy tàmbalee fa muy tàmbalee rek taxut ñu war a jàpp ne rek foofa dong la dëkk ñoo ñaa ko moom déedéet wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas la alxuraan wax yow yonent bi ci ñépp lañ la yónni te ñi nga xam ne dañoo dem ba àgg fañ àgg ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekke wuñ ko kenn xamul nu mu toll te alxuraan jooju lañ jàpp rek ak yam àndal kon kersa gi dal waa Sénégal ci ñaari xale yooyu yàlla bu mu amati waaye karawaas googu it ñim dal ci seen kaw yàlla nañ ko yëg dal di gaaw taxawaat temm ba ndaw yu mel ni ñoom ak mag ñu mel ni moom newaat gàññ ci réew mi ndax moyens yi mate na ko kenn du ne awma lu ma defe nangam awma lu ma taxawale daara wala lu ma taxawale daara yi moom kenn du ko lay ci jamono ji waaye bokk yi xar baax bi ci am muy loo xam ne demee na nuñ ko xamee wutoon mooy diine ci Sénégal alxuraan bokku ci ak yi alxuraan àndal ji gindi ab jullit dañu ko tënkoon ba moomale ko aw nit ñu ne diw ñoom ñoo ko moom ba sax bu ñuy xamalee nit ñi ak nit dañ naan ba mu matee dal jàng ni ko doomi soxna yi di di defe kon day mel ne baat boobu mi ngi bëgg a tux doomi soxna jooju wutaloon nañ ko sax ay sant faam nga xam ne saa boo nangam la sant ñu ne xanaa kon ci diw ñoom nga bokk nga daal di yëkkati ay mbagg bokk yi rawante boobu kenn ci sant yi ñu xamoon bokku ci kenn sant yi ñu xamoon bokku ci loolu Sëriñ Tuubaa waxoon na ci ak ñun ne woon na nit ñi li ñuy rawantee bu leen ko tënk ci diw ko jur wala mooy maamam wala mooy baayam nii la sant wala faa la dëkk nee na li ñuy rawantee mooy ci xam-xam la ñuy rawante rawatina nag xam-xam bi nga xam ne moo jur nday xam mooy nday xam-xam umul kitab alxuraan téere yépp wala ñuy bind ñëpp buñ dee bind ci diine wala ñuy bind ci nit ak la weesu woon tey wax dëgg mënuñoo ñàkk jëfandikoo alxuraan benn ñu xam ko wala ñu bañ koo xam waaye bu ci boo ci boo bëggee wax ak jullit yi moom lu yàgg te ñu gëm ko boo nee alxuraan nee na ca baat ak tontu lay nekk sëñ bu mag bi moo wax ci bindam am na ci téere bu ñuy wax nahju qadaayil xaaj ne ci xam-xam dong ci lañ war a yëkkatee nit teg ca kaw waaye buñ ko yëkkati wutit na xool digganteem ak xam-xam ba xam moom fu mu toll waalam bi anna ma tafawuta al wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bihima yafdulu man qad fadala la bintisaabihi liman qad i'tala min jihati al ansaabi ummin wa abi fa fihima ijtahid maa taaddub kon sant yi ñu xamoon ak ñañ tegoon fee ne ñee ñoom ñoomoom alxuraan naka jekk ñoo ko doonante woon ba muy ñëw sant yi nga xam ne ñoo gañee lu téeméeri réew yu teg doon xëccoo sant yooyu boole wuñu leen ci woon mbaadu la benn boroom xam-xam waxoon ne moom gannaaw yurut dara bu mu set sax yuru ko na toog ci fa mujj ci sàppe sax ñu ne ko loo ci jublu mu génne xam-xam bu leer boo xam ne xam nañ ne ku xam la nee na su nit yi jiitlee di dem ñu ne kii moo war a jiitu ñu jiitlee di dem ba mu yàgg am ku ne ci seen gannaaw ne eh wàññi ko leen foofu du yoon wi nee na ña newoon sa gannaaw ñooy jiituwaat duñ leen di wan yoon wa ña newoon sa gannaaw ñooy jiituwaat ba dugg ci dëkkam mbaadu loolu day bëgg a ñëw sëñ bu mag bi nag bi muy bind bindalutoon ma sàmba ak ma demba dafa jëfandikoo ñeent yi mu wax ci benn téereem ñaari téere wax na ko ci lu ko wala mu ëpp ko ne li tax nit di wut xam-xam na ko azaruq nettale moom sëñ bi ma wax loolu ne ñeent yii moom ku ko fi dàkk mën ngaa am xam-xam bu la amal njariñ amal nit ñi njariñ ba ci jëkk mooy fexe ba génn ci ñàkk xam moo ci jiitu boobu moom su amul kenn njariñ it dana dana jariñu moom ndax doonatu lu jóg yóbbaale ko ñaareel ba mooy bu xàmmee bu génnee ci ñàkk xam ba noppi mu fës yéene nit ñi xam ñetteel ba mu fexe ba ba bokk ci ñi ci bàyyi xam-xam ñeenteel ba muy fexe ba lu muy def mu teg ko ci xam-xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn jaamuwut yàlla lu ko gënal jëfe xam-xam wuti xam-xam ba am ko di ko jëfe ndax benn waaye bu jëfe xam-xamam teg tànkam ci lu muy def xam-xam la koy teg moo gën a metti ci seytaane fuuf junni nit ñoo xam ne ay jaamukat yàlla ngeen di waaye te antu xam-xam maa abida allahu bi cheyin afdala min fiqhin fi ddin wala faqihun waxidun ashaddu ala cheytaani min alfi aabid dal ne loo gis day am keno bu koy taaw ba mën ne nongu ca kaw te kuy dund ci diine nag diine moom kana bi koy yanu mu taxaw mooy xam wa li kulli cheyin imaadun wa imaadu hada diini alfiqhu dal ne ki am xam-xam ni mu gënee ki am xam-xam di jaamu yàlla ni mu gënee ki xamul dara tey jaamu yàlla ni moom di def la muy def la kay di def yonent bi naa ne sallallahu alayhi wa sallam ku ma jëkk a wax gën na ki ma mujj a wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu gënee ñi gën a suufe ci ay saxaabaam fadlul aalimi ala al aabidi ka fadli ala adna rajulin min ashaabi li ma jublu nag ci xam-xam bi mooy alxuraan moo cay jiitu alxuraan jooju nag ñu baree bari ñiy jàngat neexal yi ñu ciy joxe tënk nañ ne bu ñu sañoon ñoom ku gañeeti ku amati ndamul alxuraan wala sax ci xasaayit yi duñ ko jox xaalis waaye ku kuñ kuñ war a jox fukki million ci alxuraan nañ ko ko wutale bourse mu gunge ko mu dem jàngali alxuraan di àndal su ko defee saa bu demee ba am lu mu jàpp saa bu xoolee mu wër ko ne moom alxuraan na ko dundal moo ko yor ba ba ci dundam gépp ba ay moroomam ñee ko ca xam ne alxuraan métier la naka noonu it ku ñuy joxati ab neexal boo xam ne moo raw ñëpp ci xasaayidi sëriñ bi it ñu baree bari gaaral nañ ne buñ joxeeti xaalis buñ joxeeti oto waaye xaalis boobu oto yooyu nañ leen ko gungee jàngale leen ko bañ xam li xasaayid yi di wax am na ku wax ne fu ñu ko yàq kenn du fa yàqoo waaye fu ñu koy defaree nag xanaa fu ñu koy yàqee fu ñu koy defaree duñ mënuñoo yam kon ñi nga xam ne ñoom la nos nekk ci seen loxo am nañu sas moo xam muy état wala muy sëriñub diine bu dee état ñiy dem di indil Sénégal ay ndam alxuraan bokk na ci ñooñu kenn wur leen a ñàkkal fayda dañ leen a war di tàpp-tàppal te li ko tàmbalee yoon wi ñu gëm ne alxuraan mën naa indil Sénégal dara yeneen yi ci des yu ciy def lu bare bare bare bari tàpp-tàppal muñal rek ngay dégg di courage di courage rek ba kañ waaye alxuraan moom buy dem kenn du ko yëg ñu jàpp ci yàlla dem ak seen pexe yu néew te moo ne bokk yi it li may jeexale mooy ñaar ñooñu daara yi ñu génne it bokku ci daara yi ñu xamoon ku jigéen ki bàyyee ma ko jàngal alxuraan ci loxol boppam ku góor ki mi ngi jàng ci jeneen daara ju nekk ca Ndakaaru nga xam ne yàlla leen dajale rek li leen li boole ñëpp jullit yëpp muy alxuraan moo leen boole ñoom ñaar kii jóge penku kii jóge sow kon lu yàlla boole rek moo mën a ànd loolu mooy sélection dëgg kii jóge penku kii jóge sow kii di góor di jigéen te équipe bi duñ boole góor ak jigéen ñuy dem équipe bu góor ak boobu jigéen day am waaye boole góor ak jigéen pas-pas ngu noonu parité bi ñuy wax mën nañ ko jàngate ci ñaar ñooñu teg fii góor teg fii jigéen ñoom ñëpp ñu dem gañe dara indi Sénégal waaye ay jigéen kese dem bu ñëwee bu ñuy wàcc bu ñu indee dara ñëpp koy dégg war nañ leen a dégg ndax joxoon nañ leen lu bari ñu dem waaye suñu suñu indaaliwu dara dañuy yoloo si yoloo si ndànk boo leen bëggee foto sax ñu fab seen portable ba ñu yoroon muuroo ko ba boo leen far wala sax ñu jaar na ñibbi far fañ jóge woon waaye bu dee gañe nañ as tuut da ngay dégg ñu ne jaraaf di bokk ci gouvernement bi gàttanda jo leen jaraaf boo ko déggee mooy ministre mu wax lu bari lu ñu def ci ñoom waaye alxuraan moom daa mel dañoo ruus ne daal Sénégal a gagné waaye sëñ bu mag bi moom ak ñi bokk moom ab liggéey ñëpp ci bég ñëpp ci bég moom pour que réew ci xam ne lu mu yàgg-yàgg ñooy gagné lu mu yàgg-yàgg ñooy gagné kon na leen ñëpp ñaanal yàlla may leen fan yu gudd te seen wayjur ja wóolu daara ba joxe leen fa it dajeeg payoog suñu borom bala ñoo fee bàyyi ko te njàgg fi ba seeni doom jariñ leen ci seen kanam ñi nga xam ne ñu ngi ci doon liggéey nañ góorgóorlu bu baax rawati nag ñi nga xam ne dañ ne ñoom ñii ñoom ñooy ñoo fi ñooy wattukatu alxuraan ñoo fi tax alxuraan toog fi ba nëgëriñ biñ leen ter Tuubaa sax loolu feeñ na ci bu ñu leen di tar Tuubaa itam ak a wuuteeg bu ñuy tar Tuubaa ñenn ñi moo ne loolu day moo taxoon sëriñ bi sañ ci Tuubaa ndam loolu ñu am fañ ko jëlee muy alxuraan moo taxoon sëriñ bi sañ ci Tuubaa mas naa wax ca njëreem ne baat bi wolof di wax naan gémmiñ daa dugg nit su fekkee loolu lu am la moom dugg na ko ndax Tuubaa googee la bëggoon a nekk yéene woon ko di fa jàngale alxuraan ba ba ko fi yàlla jële yàlla dox digganteem ak loolu ci dogalam bi bokk ci natt bi ko gën a bi gën a rëy ci moom kon ku am ndam ci alxuraan di ñibbi Tuubaa waroon mbedd mi waroon naa fees dell te koo ca seen joxaat ko loxo loolu doy na ab junj mbooloo mi waroon na ne gaañ ci mbedd mi boo koo ca gis joxaat ko loxo yàlla na yàlla déggloo waxi sëriñ bi ak jëfam koor gi nag tey jii incha allah li ëpp Sénégal tey lañu koy séentu koor gi li yàlla li ci yàlla dige lépp jaarale ko ci làmmiñ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa mën a sotti dañuy jaar ci séentu weer ba gis ko wala ñu gisal ñu ko su dee boobaa koor jot am na ñoo xam ne dañoo ñàkkal fayda lool séentu ji weer dañuy toog naan naa déglu rajo bi waaye bu ñëpp toogee naa naa déglu rajo bi ku koy séentu ji kon séentu weer wi lu ci am solo la li yonent bi jàngale nag dafa yomb nee na bu weer yi tolloo fii ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ñun ñi ko jàpp su ngoonee nañ xool saw bi ku am ay gët yu mën a séen su amul gët yu mën a séenee it na bokk ci mbooloo may dem ba ku gis man ko ko wan muy benn suñ xoolee xool gisuñu ko gisaluñu ko ma ne sañu ko gisal ñañu koy gisal nag foofu la problème bi nekk jafe-jafe foofu la nekk ndax am na ñooñ dañ naan bu ko waa barab sàngam gisee rek waaye misaal mi ñu ciy joxe saa su nekk mooy waa barab sàngam mënuñoo doy ndax waa barab sàngam ku doon dénkaane ñaar fukki million da nga seet koo ko cay dénk da nga ko xam xamin wu leer boo xam ne wóor na la su su suñ ne la nekku fi da nga xam fa nga koy seeta ji waaye mënoo ñemewu dénkaan ñaar fukki million ku nekk ba noppi bëgg koo gëm ci sa pas-pas bëgg ko dénk sa pas-pas it loolu mat naa seetaan moo tax tënk bi waroom xam-xam yi tënk ne ñan ñoo koy gis mu doy ñëpp bu dee weeru koor la na doon kenn ku maandu kenn ku maandu nag maandu nag mooy lan mooy koo xam ne ñi ko xam ñëpp xamuñ ci moom ab safaan mooy koo xam ne daal nii gone yee waxee naan diw nammut dara koo xam ne suy wax lu ci séet dara lu dul ngir yàlla képp moom la abdullahi ibnu omar wax ne moom radiallahu anhuma dem na fi barab bisub séentu weeru koor mu gis ñuy wanante weer wi mu ne anamu ñu ne ko ma nga nee mu ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne gis naa géew bu naan weer waa nga ne weer waa nga ne ma dem ba àgg ca ñoom bañ wan ma ko yonent bi ne kon kay um jot na waaye ndax ñëpp nii Abdullah ibn Omar lañ mel déedéet buñ ko xoolee gisuñu ko yonent bi ne nañ bàyyi ba ca suba sa ca ngoon weer yi mat fan weeri fan korite gi tam àgguñ ca waaye noonu la waaye ñu fàttali ne kuy woor it ñu fàttaliwaat ko di dem barab sàngam naan dañ koy fas yi amul njariñ li am solo moom mooy moom mu fas ko moom ci boppam fas yéene woor fanaanoo koor gi ni nii fanaanoo xëy dem barab sàngam benn mooy mooy bi ci jiitu mooy yéene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëfe nit ki bu ñu koy natt dañuy xool yéeneem fu mu toll te jaamu yàlla yi nga xam ne yéene moo cay jiitu yépp ku dem ba ci digg mun a yéeneetu dara yàqu na ndax dafa dindi fondation tabax ba ñaareel ba mooy fexe ba bañ a dog ci koor gi boo yéenee lépp lu ñu day dog koor moo xam muy lu ñuy laal ak loxo di ko daj wala lu ñuy def ci biir muy dugg ci biir ñu di ko yëg lu mu saf wala lu muy xeeñ ba sax dox jëm ci foo xam ne ay caaxaana fa nekk wala di ko déglu ma di ci ñaaxaale bokk yi nga xam ne dañoo yore ay télévision wala ay rajo yàlla na yàlla gindi waaye mën nañoo yàq koor yu bari ndax bëccëgu weeru koor ni mu mettee nit woor ko jànkoonteeg coonob xiif ak mar ak moytu ba tëkkusaan mu tàmbalee am yaakaar ñu ne dajj ci télévision bi ay théâtre yi caaxaan yoo xam ne yii day woyefal dog ci koor nu mel ñii di jàngale sàcc ci lekk lekk ci koor ñii di wane yoo xam dañ naan garawut te di ci tudd sax ay kilifa naan di wutal di wutal ña koy def ay tur ñenn ñi roy ci moom naan ginnaaw diw nga koy def nangam ak nangam ak nangam ñooñu itam yàlla leen yàlla gindi ba kooru ren gi mu bañ a am rawatina nag buñ ndogoo ba noppi diggante fi ñuy ndogoo ak fi ñuy jullee it léeg-léeg am télévision yu fa jaarale ay caaxaan wala waxtu naa fi la dara desut lu may julligee dem ca mbooloo ma donte ku ne mën na ko defe këram waaye mbooloo ma dana soññi benn benn yi nga xam ne dañoo xaw a desee jàmbaare tuuti dara desul lu may dem naafila ci jàkka ja ñu tàmbalee teg film boo xam ne bu ñu ko diggee nit ñi bala ñu ko teg dana mat fanweeri minutes yoo xam ne dañ cay jaay dañ cay jaay ak a jënd ba sax ña doon julli mën a sëlmal yow nga ne daal tàyyi naa ñu dog koo tàmbalee teg dem ba ci digg ba muy tàmbalee neex ba muy tàmbalee xam ñu dagaat ko nga xam ne mën nga fay def ñaari waxtu yu lëm yoo xam ne fàtte nga ne yaa ngi ci weeru koor ñoo ñit yàlla na yàlla gindi ci weer wi ba ñu sàmmonte ci ba am ci yool bi ci jullit yi am waaye ñu sàmmonte ci ba bañ cee am ay bàkkaar yoo xam ne ñoom sax mën nañ ko bañ a def jonjoo ak moom waaye dañ koy teg aw nit te ginnaaw ku def ci diine lu ñu koy toppandooyee lu baax ku ca jaar mën na caa am ak pay safaan ba noonu yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te àggale ñu ci jàmm ak salaam te ñëpp bokk ñaanal ñaanalaat ndaw yooyu yàlla leen yàlla lefal car te ma fàttaliwaat ne jox leen xaalis baax na waaye nañ leen gungeel seenum njàng ñu jàllale ko ndax ak guñ fenn fu ñuy bàyyee wéer seen àdduna ak leneen lu ñu bëgg a jàng rek nañ leen may ñu jàng ko ba lu ñu ca mën a am xam ne alxuraan moo leen ko laytaayal